Go, go. màggalu Touba Brésil kese yaa na suul de Serigne Saliou tarkalla macha allah waaw waaw waxal ñun xam nga dañuy dañuy gone Serigne Saliou wallaay bu doo njaareem yaroo fa màggee fa ñëw maa la liggéeyal Serigne Touba wala falam um pouco em português aham Ah, hoje é um dia especial para euh, toda a comunidade muçulmana, uhum. exclusivamente nós que somos murid. Eh, uhum. É, hoje estamos comemorando o, o grande Magal de Tuba, uhum. junto com nossa tia muito querida, uhum. Mambusa Amar. Então hoje a festa vai ser muito linda. Ah, obrigada! أزير مع الأبرار هن أزير وزن الهدى أني هناك أزير أزير وسن الهدى أني هناك أزيل مسيري ñu ngi koy def ba dara manqué wu laax yeeg waaw furi furi yeeg café gi barke Serigne Touba yal ngeen doon milliardaire sëñ Bamba waaw ngeen di ko saqee ndijoor ak càmmooñ waaw waaw ah waaw ate bon kese waaw waaw waaw tunu bo Touba ngi waaw koy de waaw ah ñu ngi koy xel fa de maa la ko wax oui yaa ngi ko. tuuti ba tuuti ba tuuti. et travail tabo. ah ça va. ah grand magal Touba. ah Alhamdulillah. خديم من سمعته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو الحمد لله على الكتاب ما شفي موسى الختاب سيدنا محمد هو من هذا اللي خدمته وسوخا ثم صلاة الله وسلامه على الذي من له أخلامه سيدنا شفيئنا المخدم عند الذي تسكن لديه خدمي محمد وسلتي وجنتي أني لخادي ورزا وجنتي وحاله وسبه لبغاغي في أرض بتخاه خذا وخدي خدمة تخاه خير النبي بها كما تباه نويت من ذا الهم خدمة تسوه مشرفا به كفيت ما قسوه قد غمت من خب البقايا خدما لمن بجاهه كفاني سدما maa la ko wax kooku njëriñ pëli fana tey ak góore waay daf yaa ngi ñëw de tey gaa ngi ci njàngum xasida bi ñoo ngi dere seen ndékki màggal gi xasida yaa ngi jolli lépp a ngi dox jërëjëfati soxna Aïda Saliou Bhagavad alhamdulilahi rabbil salaam waa kër soxna Aida Saliou Thioune. a ñaanal bu baax Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mu yàgg fi loolu te waaw di siyaare mbokku taalibe yëpp fépp ci àddina di santaat yàlla bu baax. ci bis bii nga xamee ni Serigne tubaa Cheikh Ahmadou Bamba dañoo digal ñu santale ko ci yàlla ñu koy def ak te lool fas yéene ko feete lépp nag dëppoo ak ni nga xamee ni suñu sang bi di soxna Aïda Saliou Thioune noonu la ñu ko diggale ñi nekk Sénégal ak ñi nekk bitim réew muy jàng xasida Serigne Touba yi jàng lim ci alxuraan luñ ci mën bernde te lépp ànd ak mbégte naan lu neex waxtaan ak sa njaboot ak képp koo ci mën a boole euh, kon ñi ngi santaat bu baax tey ñaan yàlla nañ ko yàgg fekke ci barke Sëriñ Béthio Thioune quindi euh, siamo molto contenti molto felici di di di di essere ancora qui in questo giorno di magal de Sëriñ un giorno di grazia un giorno molto importante per noi Murit e quindi noi talibè di Sokhna Aida Saliu la nostra guida spirituale, abbiamo festeggiato a casa nostra eh, leggere il Corano, leggere le Qasai di Serin Tuba, i testi di Serin Tuba e eh, festeggiare, mangiare eh, con la, i nostri figli, con la nostra famiglia. Direi di Serin Beccio, direi di Serin Salut direi di soxna Aida Saari wu jur yàlla na fi yàgg loolu tëgër محمد وآله والحمد وكل ذي ترسمين يا ذا البقاء والقدم مني تقبل